la ndamal Sénégal ndamal peuple sénégalais ndaxte lii am tey ji ndoonte génn wàll ndam la sax dañ koy sant yàlla di sant peuple sénégalais bi nga xam ne nii au-delà de tout moom moo jóg taxaw ne gasi gasi nag mooy doy na ça suffit parce que nag bëgg bayoon ne liberté yi bëgg tënk peuple bi lu neex nga def loolu dafa jeex Sénégal te loolu la Sénégalais wane tey mais profité ci occasion bi pour féliciter président Ousmane Sonko pour sa bravoure et son courage mais également profité l'occasion pour féliciter xale yi Sénégal ndax seen taxawaay rafet na di féliciter jigéenu Sénégal ndax seen taxawaay rafet na di wax ne nag xeex bi yemul fii ndaxte xam ngeen ne. am nañ yeneen détenu politique yoo xam ne ñu ngi ciy kaso yi il faut ñu génne leen te bu ñu leen génnee ba pare it il faut que Sénégal am loo xam ne nii kenn du ko fi dindeeti parce que Sénégal ñu buur président lañu fal nañu fexe ba Sénégal liberté kenn du ko négocié ti nañu fexe démocratie kenn du ko négocié nañu fexe ne tricage élection kenn du ko négocié ti ndaxte Sénégal nu appartenons tous au peuple sénégalais. parce que Sénégal sénégalais ñoo moom seen réew benn président moomul Sénégal kon nag nañu respecté sénégalais yi jox leen seen wàccuwaay loolu moo tax tey jii donte kontaan nañu waaye suñu xol fees na te suñu xol day continuer fees tant que Sénégal amul liberté amul démocratie kon nag ñu ñaan yàlla Ousmane ko dellu këram waaye xeex bi nga xam ne nii sénégalais yi dañoo jog pour xeex ko day continuer ba Sénégal am li nga xam ne nii axam ak yelleefam moom lañ koy xaarat fii ci biir réew mi ak ci bitim réew jërëjëf